mooy ne est-ce que Ousmane Sonko dafa war a dem wala warut a dem. Oh, oh. mais man nag dama jàpp ne mu dem ak mu ñàkk dem yëpp a yem son sort est déjà scellé il ne peut plus échapper par rapport ak li nga xamante ne. maanaam mu dem mu dem moo yem mu dem. ak ñàkk a dem moo yem son sort est déjà scellé léegi bon bu bëggoon naa micro bi jàpp kii wër micro bëggoon euh, naa la defal tuuti rek. Mm-hmm. rappel ci li nga xamante ne moom mooy réquisitoire définitif. Mm-hmm. Euh, sur les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko. définir nañ article 320 sur le viol. Mmh. attendu qu'en l'espèce euh, Adji Sarr a constamment soutenu tant à l'enquête préliminaire que dans le devant le juge d'instruction avoir été violée cinq fois par Ousmane Sonko hormis le cas dont elle ne se souvient pas du jour et la date pour les autres elle a donné des détails précis la date exacte l'heure les circonstances la manière et les détails du viol dont elle est victime entendu que Ousmane Sonko tout en reconnaissant avoir fréquenté Sweet Beauté pour des euh, séances de massage, a contesté les faits de viol qui lui a été reprochés. Toutefois, il a refusé de s'exprimer sur les raisons du choix de Sweet Beauté et sur la capacité des masseuses du salon à effectuer des messages thérapeutiques. Qu'il a outre refusé de se soumettre à un test ADN pour comparer son ADN avec celui trouvé dans le sperme prélevé dans le vagin de Adji Sarr. procureur mooy wax ah. Euh, juge procureur oui. oui. Entendu que malgré la précision et la constance des déclarations de Adji Sarr, Ousmane Sonko se borne à adapter euh, un silence éloquent sur les circonstances du viol et que le ce silence ne fait qu'accréditer la thèse du viol. qu'en effet, si Adissar a été assez précise sur les manières à laquelle l'acte de pénétration a été commis sur sa personne par Ousmane Sonko, notamment par menace euh, de lui faire perdre son boulot et de, de lui pourrir la vie grâce à son envergure sociale. Celui-ci s'est euh, émuré dans un silence coupable sur des questions qui auraient été pu lui mettre hors de cause si tant est qu'il était innocent. que le refus de répondre aux questions liées aux circonstances de viol traduit par, euh, de la part de l'inculpé euh, une absence d'argument à faire valoir, à faire face à la constance et à la précision des déclarations de Adji Sarr. Mm-hmm. Alors, euh, pour la question de, euh, du test ADN. Mm-hmm. li mooy réquisitoire définitif bi procureur jébbal. oui attendu nga tënkal ñu ko ci wolof. attendu qu'il est constant résultat de la réponse numéro tel tel tel du 19 décembre 2022 le de service de laboratoire de biologie médicale de l'hôpital général Idrissa Pouye mhm. le prélèvement fait sur Adji Sarr le 2 février 2021 a relevé après analyse la présence de spermatozoïdes vivants <laughs> que la présence de spermatozoïdes vivants dans le temps voisin de l'action atteste de l'existence de l'acte de pénétration sexuelle ayant abouti sur une éjaculation à l'encontre euh, à l'a constamment soutenu la victime que mieux le refus de test ADN afin de comparer son ADN et celui du spermatozoïde trouvé lors du prélèvement vaginal sur la victime du viol commis la nuit du 8, du 2 février 2021 semble qu'un aveu de culpabilité qu'il est évident que l'inculpé a refusé un tel euh, examen qui lui qui qu'il savait d'avance que la concordance des deux ADN confirmerait la déclaration de la victime sur au moins l'existence d'un rapport sexuel dans la nuit du 2 février 2021. Mhm. Que la thèse du complot avancée par l'inculpé pour se mettre hors de cause manque de pertinence puisqu'il a parlé tout sauf de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Institut Suite Beauté. Or, les faits qui lui sont reprochés ont eu pour cadre euh, intérieur du salon et non le déroulement de l'enquête encore moins la neutralité de ces acteurs que le système classique de défense caractéristique des inculpés ou des prévenus en mal d'arguments solides s'analyse en une vaine tentative d'ouverture d'un contre-feu afin de dérouler la procédure sur les questions sans aucun rapport avec les faits, objet des poursuites, que cette démarche est inopérante. Entendu qu'en définitive, la réalité des actes de pénétration sexuelle euh, n'a pas été sérieusement contesté par l'inculpé que euh, selon la victime euh, euh le dit acte ont été commis sur sa personne par menace et par contrainte donc les faits de donc euh, dès lors qu'il a eu lieu de renvoyer l'inculpé des chef d'inculpation de viol. d'accord tënk ko ci ñetti kaddu ci ñetti kaddu tënk ko ci woon. non beneen non non non le réquisitoire continue. léegi xoolal ci ñetti kaddu të li nga wax fii tënkal ñu ko ci ñetti baat rek. ci ci waaw waaw ma ko mënee tënk ci ñetti baat ci wolof moom mooy procureur nee na. Mhm. lii nga xamante ne moom la Adji Sarr di wax boobu ba léegi. am na lu koy justifié ndax ah procureur réquisitoire définitif la en fait réquisitoire définitif oui nee na li Adji Sarr di wax am na constance yenu na maanaa ndax joxe na ay précision yu leer ci heure bi date bi ak lépp na mu xewee mhm. nee na li nga xamante ne moom mooy jëflante sur euh, conjonction bi am seen diggante nee na loolu lu wér la ndaxte li nga xamante ne moom lañ jëlee ci euh, Adji Sarr ay mën niw euh, ay mën niw waaw nee na yooyu noonu bu Ousmane Sonko nangu woon test ADN dina dinañu xam ne li nekk ci euh, euh, ah Adji Sarr ak euh. ak ak ak mëniw ak adeewal Ousmane Sonko kenn lay doon <laughs> te bu boobaa du mën a contester ah. li nga xamante ne moom mooy uh-huh. rapport sexuel bi nga xamante ne moom moo am bu waxee ay mbirum complot day jéem a rek ubbi beneen contre fa mais xam na ni conjonction sexuelle am na ci euh, guddiwu 2 février. ma première question balaa ngaa dal ma première question yow dalal nga docteur Alpha Seyni n'est-ce pas. biir Kéwoulo docteur waaw Alpha Alpha Seyni Gueye waaw Alpha Seyni Gueye du dalal na ko biir Kéwoulo. Babacar Touré euh, Babacar dalal na ko biir Kéwoulo posé ngeen ko question deux ou trois fois. Mm. ce qu'il a expliqué ci moom li mu wax ci ci bu ma fàttelul docteur bi nga xamante ne moom moo def certificat médical bi moom nee na woon am na ay prélèvements yu mu def ci Adji sax mais nekkutoon mën niw comme ni ko nu mu tërati euh, réquisitoire procureur wax wala. non euh, docteur Alfousseyni Gaye bi mu nee dafa def euh, prélèvement daf ko yóbbu laboratoire. léegi moom nee na ni ki ko décriroon ne ko dafa nekk en détresse tiit na nekk na en danger nangam bi mu ñëwee ku séeréer la fekk. maanaam docteur Alfousseyni Gaye boo ko dégloo en filigrane moom mi nga xamante ne consulté na Adji jàppul ne sax. pénétration mënoon na am ci diggante boobu noonu. d' accord léegi léegi yow li nga wax fii yëpp mooy li ab li procureur wax. léegi ndax avocat Ousmane Sonko ñoom ñoom tam lan lañ wax maanaam est ce nañu ci lii wala wala amu amuñu guñu occasion boobu. non non tontoo ko waa avocat Ousmane Sonko tontoo ko. ci lii waaw tamit dina am solo. ñu mm-hmm. indi jiixi jaaxa bi nekk ci docteur témoin bi mu def ki nga xamante ne moom moo def. certificat moo moo saytu. Alpha Séni li mu ci def ci PV xam nga moom ci li mu wax ci saytu bi dafa nekk clairement que ne euh, def nañ ay prélèvement mais bokkut ak dara lu jëm ci menu que Adji Sarr bu ñu xoolee ci euh, euh, ñaari fan yi mu mujj amul dara lu mu sekk ak góor. Mhm. kon nag bu gisee tey procureur dernière euh, réquisitoire am mu bind li au fait dafa am benn nu mu tërati contradiction contradiction boo xam ne. si c'est énorme reflété wul lu lu médecin bi ah, wax. ak ah, ah, ay audio bu Adji Sarr di avoué ak yooyu yëpp neen loolu ça n'a rien à comme audio yi mu doon wax ak procureur moom a waxee il soutient l'accusation d' accord euh, maître mais c' est grave vous faites si flagrant waaw dégg nga réquisitoire à feu. et à charge bi nga xamante ne. procureur man comme ni ma ko waxee ci njëlbeen. man yoon daf maa tere ma àddu ci. waaye en tant que politique. Mhm. man damay am benn lecture politique ci situation bi xam ni moo am jamono jii ci réew mhm. li nu gis mooy dafa mel ni dañu am ñaari camp yu opposé ci réew mi mooy ñi xam ne dañuy soutenir. Ousmane ko mhm. ak ñuy soutenir maam les tenants du pouvoir ci ni nu jàngatee réew mi ni mu tëddee te loolu Pape képp ku ciy reetaan da xamul lan muy fitna saa fii ma gisee man li ma gisee réew mi nii il faut impérativement képp ku fi kilifa moo xam kilifa diine nga kilifa aada nga nga taxaw pour ñu trouver une solution politique par rapport à cette affaire là vous savez pourquoi man de l'histoire en fait judiciaire du Sénégal tey la njëkk a gis ku ñuy tuumaal viol ñu mettre ko su contrôle judiciaire donc il y a une un aspect spécial de cette affaire bi compte de sa spécialité maintenant dans une situation spéciale il faut des mesures spéciale te gis nga Pape lii buñ ko arrêté wul waxtaan ci suñ biir parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais ndax justice boobu ñi rendre mon cher collègue di ko rendre au nom du peuple sénégalais est-ce que war naa dem ba faire disparaître ce peuple gis nañ bu baax ci sous-région bi lu mel ni Côte d'Ivoire amoon na tension bu doy waar ci diggante tenant au pouvoir ak l'opposition ana nan lañ mujjee ils ont trouvé des compromis par des accords politiques gis nga il faudrait aujourd'hui kuy wax dëgg te yàlla pour la préservation de la stabilité et de la cohésion de ce peuple ñu mag ñi xam ne ñoo fi ne di ci ay kilifa aada wala kilifa diine ñu toog waxtaan ak ñi xam ne ñooy les acteurs politiques pour trouver une solution bu dul loolu Pape mhm. réew mi fa mu jëm musiba la te du mu ci mucc kenn du ci mucc ku yaakaar ne mën nga cee mucc da nax sa bopp. d'accord léegi yow yaa ngi wax wàllu solution.